non troisième mandat Ablaye Wade lañ doon xeex ànd ceeg moom. donc tey bu mu jaaxal kenn. buñ ñëwaatee fii nga xam ne fii la taxawoon àndoon ak papa moom mii xeexee ko fii fii la ñuy ñëwaat jaar ci tànk yi mu jaaroon xeexaatee ko fii gañewaat ko. Mhm. comme ni mu defoon ba gañe ko 2011. Mhm. ñun ko ay conviction ak i principe la ñuy ànd ak nit. ay conviction ak i la ñuy ànd jaar na ci xam na nu mu méttee ñu koy métti woon ca booba tey mu ñëw jaar fii tànk Ablaye Wade jaaroon. Mhm. bëgg ñoo teg li li ñu bañoon ca booba nanguwuñ ko dem du tey lañ koy def. l'opposition la ma war a doon seen seen seen seen combat. ginnaaw bi ñu bind xaaral balaa ñuy ñëw ci bi dernière question liggéey rek. demal dernière question bi rek la dernière question sur l'opposition. je pense que tànk yi ñu tàmbalee taxaw buñ ko dëggalee nekk na solution. ndaxte xam nañ ne boole opposition dëggantaan yombut parce que bëri na adversité mais li jar a wax te yàlla rek tax ñi ngi ko jéem du ma ne nag ñëpp booloo nañ de mais au moins ñi ngi teg jéego di ko jéem solution bi ñu ci gis nag te man ma yaakaar ne loolooy solution bi te ma ciy woo leader yëpp candidat à l' élection présidentielle yëpp bépp politicien nañu jël suñuy couleuru parti politique teg ko ci suuf nañu sol benn couleur muy bii mm. benn drapeau rek a fi am c'est le drapeau du Sénégal le combat là c'est pas le combat d'un candidat c'est pas le combat d'un politicien c'est le combat du peuple sénégalais kuy taxaw nanga nga sol tey gisoo leen fi veeru arc gisoo leen fi suñu jaune benn couleur amu fi donc je pense que ñu ngi koy con euh, comprendre euh, ñu koy comprendre moo tax tamit ñu lëkkaloo ak la plateforme aar suñu élection mm-hmm. boo gisee ne que candidats yi demaluñu seen bopp dem décider lëkkaloo ak aar suñu élection ça veut dire que comprendre nañ ne que combat bi waruñu ko def affaire politique. Mm-hmm. c' est pour sauver la démocratie c' est pour sauver la souveraineté et sauver notre république. Mm-hmm. donc aar suñu élection nag ñëpp nit société civile. ñëpp les organisations patronales les syndicats ñëpp a ngi ci tout le peuple sénégalais est bien représenté. Mhm. donc loolu mooy suñu taxawaay tey. juste en français. Euh, l'objectif de l'objectif de votre visite ici à Walfadjri. voilà nous sommes nous sommes venus aujourd'hui ici à Walfadjri pour soutenir d'abord un frère mais soutenir à travers sa personne euh, toute la presse sénégalaise parce que nous sommes opprimés de 3 ans, 4 ans que ça dure, mais l'oppression mise sur le dos de Walf Fadjri et sur la presse mais date depuis des années. Donc nous sommes venus pour une du courage. Du courage, ça fait des années que vous restez résilient et endurant. Nous sommes à la fin de ce combat, hein, ce processus. On est à quelques jours

et je l'ai dit à l'ensemble des partis politiques et des membres de l'opposition. Mettons, rangeons quelques temps de façon <laughs> temporaire les couleurs de nos partis politiques et portons une seule couleur et un seul drapeau, c'est le drapeau du Sénégal. Et c'est ce qui va. On vous encourage, c'est bientôt la fin, nous l'espérons, parce que la rupture se fera ici au Sénégal, Inch'Allah. Et la relève sera assurée.